إبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله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 wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalina sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alqaail addabani rabbi fa axsana ta'diibi wa qaal awalu ma xalaqa allahu taala qabla kulli cheyin nuuri wa min nuuri xalaqa allahu kullu chey sallallahu alayhi wa sallam wa radiya allahu an alqutbi almaktuumi walbarzaxi almaxtuum صاحب القتمية والكتمية مولانا الشيخ أبي العباس أحمد ابن محمد التجاني الشريف ورضا تام عن وارثهما وخليفتهما على الإطلاق خاتم الختمين الذي حمل سر خاتم الولاية وجمع بين الذوق والدراية قطب زمانه فريد دهره وأوانه مولانا شيخ الإسلام الحج إبراهيم نياس mbokk yi ñu bokk ci yàlla gannaaw bañ leen nuyoo ndokkee leen ci xadra al ibrahimiya di ànd ak mbégte ci dégtal leen portrait jëm ci góor gu mag gu kowe gii di mawlaana cheikh al islaam alhaj ibrahim Niass cheikh ibrahim radiallahu anhu ñu gën koo xam ci cheikh al islaam gane àdduna ci dëkk bu mag di Tayba Ñaseen waykat ba doon na ko junj bihi Tayba Ñaseen taxuusu faxran li saakini saalumin aw bilaadu siini bésëb alxamis yemook fukki fan ak juróom ci weeru rajab 1320 hijri rajab di weer wu màgg ci la arab yi daan màggal seeni xërëm donte ne xërëm doonut lu intéressé doomi jullit ñu wax ni ba tey ci weeru rajab bi nga xam ni ci la mawlana cheikh ibrahim radiallahu anhu gane àdduna arab yi luñ daan xeex bu weer wi jotee ñu wéer seeni ngànnaay ngir fonk guñ fonk weeru rajab al wa wal miraj mi ngi xewee ci weer wi di weeru rajab ñaar fukkeeli fan ak juróom ñaar ci weeru rajab bi ba tey ci la yàlla farataale julli juróom yi nga xam ne lislaam mi ngi jàngale ne man aqaamaha faqad aqaama diin wa man hadamaha faqad hadama diin képp ku taxawee julli yaa ngi taxawal branche lislaam képp ku ko sàgganee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 bokk na ci màndargay weer wu màgg wii di tegtal màggaayib borom jamono mawlana cheikh al islam alhaj ibrahim Niass ay kilifa gane nañ ci àdduna dana doy ñu tudd ci cheikh ahmed ibn ali abul abbas di seriñu tariqa bi ñuy tuddee al tariqatu rafaiya boroom tafsir bi siiw lool ci jalaalayn muy jalaalu diin as suyuti mu ngi gane adduna ci weer wi di weeru rajab cheikh al islam Ibrahim Niass ginnaaw bi mu ganee àdduna ci Taïba Niassène ci diggante wayjur yu tedd te mag ci wàllu wayjuram wu góor maam alxaaji Abdullahi ay maamam dañuy dellu ba ci Uqba ibnu Abdul Qays ibnu Aqil ibnu Naafi ci wàllu yaayam mi ngi tuddoon al sayida alfadila sayida Aïchatu Janqa di doom ci al sayida Bintu Thiam Bintu Thiam di doom ci Mathiam Ali Thiam Sayida Aïchatu Dianka wayjuram wu góor mi ngi tuddoon Alxaaji Ibrahim Dianka Cheikh al Islam Alxaaji Ibrahim Niass radiyallahu anhu yaroo ci ron wayjuram maam Alxaaji Abdullahi Niass ci moom la jàngee Alqur'an xam-xam ak bépp fan xam-xam yi mu làmbool way juram itam moo ko jox tariqa bi ñuy wax tariqatu tijaniya muy maam alxaaji abdullahi ñas moom la Baye Gada Gada Thiam di wax naan benn sëriñ mësu fee wax ne dem na daaram cheikh al islam alxaaji ibrahim Niass ginnaaw bi mu làqee fànni xam-xam ci yu ñuy bind ak yu ñuy dund di ko yëkk ci la nag soobo ci tabax xam-xam ci dënni góori yàlla tax mu ittewoo woon njàng ak njàngale moom Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu yamut ci loolu bind na itam ay téere yu limu bokk na ca ba mu njëkk a bind ci waxtu ndawam di ruuxul adab ci ñaar fukkeeli atam ak ñeent am ñu wax ne ñaar fukki atam ak benn mawlana cheikh ahmad ibni mahamad atijaani sharif radiallahu anhu waxoon na ne ku dégg ñu nettalil ma natt ci miidaanu sharia su balance bi rotee mu ne kon waxuma su fekkee ne nag méngoo na ak sharia man ma ko wax radiyallahu anhu méngoog waxam moom Cheikh Tijaani radiyallahu anhu boo demee ci kashful xijaab bu cheikh Ahmed al Ayashi Sukayrija mu ngi indi wax ju cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu waxoon ne taati faydatun ala asxaabi xataa yadxula annaas fi tariqatina afwaajan afwaajan taati hadihi alfayda wannaas fi gaayati ma yakunuuna alayhi min addiiqi wa shidda faydu dina feeñ ci loxol kenn ci ay taalibeem moom cheikhna Ahmed ibni Mahamad Tijani Sharif radiyallahu anhu ci atab 1929 ci lettre boo xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mi ngi ko bind kenn ci àndandooram kenn ci ay taalibeem di tafsir Omar ibn Malik naan ko kenn ci magi tariqa bi di Chérif Mouhamadul Xaafaz waxoon na boroom faydu ñaata at lay am ginnaaw màndarga yi ci Cheikh Ahmed Tijaani radiyallahu anhu joxe woon ne wa huwa ibnu thalathina sanatan faydu bi fanweeri at lay am di méngoog fanweeri ati mawlana cheikh ibrahim radiallahu anhu ci bi muy oote faydatu tijaniya ci ay loxoom bokk na ci ñi ko ko seedeel cheikh ahmed al iyashi sukayrija radiallahu anhu mi ngi ko naan shahidtu lakum fatxan mubinan bima lakum bihi alxaqu fi ahli altariqati qad xussa wa listaani alcheikh altijani xilaaf nasra maa ngi lay seedeel yow cheikh al islaam alxaj ibrahim ñas fatxu gu fatxu gu ci jagle gi nga jagoo ci tariqatu cheikh ahmad tijaani radiallahu anhu maa ngi lay sedel ni donn nga xilaafa gu bir ci cheikhana ahmad ibni mohamad tijaani sharif radiallahu anhu te man mii di cheikh ahmad iyaashi sukayrija maa ngi koy signé ci signature bu wax na moom cheikh ibrahim ci feeñak faydu ci loxoom yaa man yuridu tijaani ay musaafaxatan fii bayti barhaamu tul fiiha mukaafaxatan nangul na ko feeñ ak faydu bi ci loxoom mboolem kibaaru tariqa attijaaniya mboolem ulamaa u jamonoom mboolem boromi cër ci jamonoom buur yi ak baadoole yi góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñépp soobu nañ ci yoonu tijaan jaaree ci fayda atijaniya Mawlana Cheikh Ibrahim ittewoo bëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam bëgg yàlla bëgg njub di ci dox di ci dugal ak di ci doxal bépp jaam benn mission mooy mission Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ci dundam falaa anaalu raaxatan lil qalbi wa fi lbasitati yuaasi rabbi aw ma noflaayu xol man Cheikh Ibrahim li feeg ci kaw mooy yàlla gaa fi ne xaj mission moom Cheikh Ibrahim ci fayda tijaniya ci diin al islaam ci tariqa tijaniya mooy fexe ba jaami yalla yi seen xol yi laab kiiraay dagg seen digganteeg seen borom ñu des nekk di ay jaam ñeexal yàlla yàlla di borom bi di buur ñeexal jaam yooyu doon ay gor ci kaw suuf yu kenn moomut kudul seen borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mission boobu la cheikh ibrahim ittihoo mooy li waral fatxu gi gën a fës ci jamonoom maarifatu gi yanj loolu te yaatu ci jamonom ila an yasha allah mission boobu moo tax cheikh ibrahim radiallahu anhu lancé woon message am di wax ne awjadani xaqan li jabril kasri fa innani wakiilu sirru sirri yàllaa ma amal ca dëgg ngir ma jëng dam damm yi ndax man la dénk mbooti mbooti yi والأمة قصدي فيهم أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلى هنا xeet yonent yàlla Muhammad aalam bi ak ñooñ aalam bi sama itte ci ñoom mooy fexe rekk ba nandal leen ñu jeex ca péeb yàlla ba xër yi doon di ay jaam yu ñaal yàlla dund maqaamam jaam ci péeb yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dox na tànk jéego yu kawe ci loolu ci biir réew mi di senegal ak fu duut Sénégal war na avion yi yéeg na ci saxaar si oto yi lépp ngir yaatal mission wu yonent yàlla Muhammad yaatal mission wu Cheikhan Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu mi nga xam ne moom la doyloo muy sëriñam Cheikh Ibrahim moo ngay wax ne ñaari sëriñ rek la am man Cheikh Ibrahim suma sëriñ ci zaahir alquran ak sunna te kenn gënuma koy dégg suma sëriñ ci baatin di Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu du teqalikoo ak man cerse cheikh al islaam alxaaji ibrahim ñas yar na ay taalibeem ci lan bëgg yàlla bëgg yonent bi fonk bépp góor yàlla nangul bépp góor yàlla cëram bëggante ci suñu biir mooy mandargab ñi àndoon ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cheikh ahmed atijani radiallahu anhu audu billahi min alcheytan arrajim bismillah arrahman arrahim muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffari ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwanan siimaahum fi wujuhihim min athari alsujud sadaqallahu alazim mbokk yi ñu bokk ci yàlla wax lépp Cheikh Ibrahim du yomb dañ koy tënk ci foofu inchaa allahu taala di ko tëjee nag ci ne Cheikh Ibrahim ommat gi muy ommat jaamu yàlla yépp mooy lépp lu dundal xaqiqa te jëmmal shariatu moo tax mu ne bi zahiri alsharci wannuuri almubini wa rabbi saalikiina bila kaddin wala nasabi ci sharia bu bir bu leer ci laa yar sumay taalibe ak leer ak yàlla ci muy maarifatu billah mu ne nag mboolem ku jokk ci suma buum ci laa la yare egg ci yàlla rekk doyut bàyyi radiyallahu anhu nee na mooy ndorteel ak xam yàlla kon ku door ku ne war nga mën a eggali sa ndorteel te mooy dox sëyru loolu ci la cheikh ibrahim radiyallahu anhu doon soññee bépp taalibe bu askanoo ci moom ne sëyru jëm ci yàlla dina jeex as sëyru ilallahi yantahi wa seyru fillaahi la yantahi seyru ci yàlla des ci yàlla xëri ci yàlla du jeex ngir ràññaliku ay feeñuwaayam moo tax muy wax ne huwa attaraqi fi maarifi lmaarifi da ngay yéeg di dotteeku ci pays yu kawe ya cheikh al islaam alhaj ibrahim Niass radiallahu anhu mu ngi wax ci lettre bu bindoon tafsir omar ibnu malik ci feeñ ak faydatu tijaniya ci loxoom ne fa wallahi ma aflaxa man aflaxa illa bi soxbati man aflaxa géñ naa ci yàlla ne man cheikh ibrahim aji texe du texe mukk lu moy danga ànd ku texe wax na it ne ci biir lettre boobu ba tey fal xayru kull xayri fii soxbati man cheikh ibrahim maa ngi ci yaqiin bu wér ne bépp yiw mi ngi ci ànd ak man cheikh ibrahim Niass yal nañu yàlla may sidqu mahabbati cheikh ibrahim mbokk yi fi ñuy daanelee rek mooy bëgg na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba léppam di moom cheikhana ahmad tijaani waxoon na ca péyeb xëybu ne دفعت دفعة واحدة منذ أنا يافع في حضرة الغيب فصار أولي آخري وآخري أولي فكل جزئي وجزئي كلي فصرت أنا هو وهو أنا من حيث هو لا من حيث أنا cheikh ibrahim radiallahu anhu bëgg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba wax ne sax nag aliqtu bihi wannaasu fi sinati alkara tamattaatu minhu dahra id kuntu mufrada wa zuuximtu fi hada alzamani wa innani la fi giiratin mimman yaruumu muhammada walakinani jalaytu qabla istibaaqihim wa qad niltu tabriiza alquruuni li ahmada